di wax ne daje bi ci atelier bi ñu doon def tey ci diglewu ministre au assainissement ci santaane bu mu defoon jëm ci gouverneur de la région de Dakar ci ñu recenser li nga xam ne nii mooy yoon yi nga xam ne fa ndox mi di jaar bu dee wàcc na ak yeneen yi nga xam ne nii ay zone basse la mooy fi nga xam ne nii ay xur la te lim ñuy dimbalee te mu fës ci waxtaan wi mooy dinañu may ñun ñu xam yan jafe-jafe la ñuy jànkoonteel su dee ndox wàcc na ñu mun ko identifier mais mun a anticiper ci utum solution yooyu donc ci recommandation yi feeñ na ci ne dañu war a fexe ba libérer voie d'eau yooyu mais aussi dañ ko war a sécuriser ba kenn du fa tabax mais kenn du fa def lotissement mais aussi kenn du ko fatt ndax li wolof di wax ndox du bàyyi yoonam donc yoon yooyu xam bi ñu ko xam nag solo si mu am mooy uti d'aide à la décision la mooy tey ki war a dogal dafa baax mu am xam xam-xam bi war pour mu mun a dogal dogal bi gën amoon tey ji benn daje bu mag boo xam ne bii ñi nga xam ne ñépp dañuy liggéey ci mbirum mbënd mi wala ñuy liggéey ci euh, administration euh, territoriale maire yi association yi service état yëpp pour euh, saytu benn liggéey boo xam ne bii daawul lañ ko dénkoon gouverneur u Ndakaaru ne ko bi ñu gisee ne Euh, mbënn mi dafa am ay quartier yu bari yoo xam ne yi daf koy nekk fii ci région de Dakar mu gën fee tar torop ñu seet yan bërëb mooy bërëbu dox yan bërëb moo nekk bërëbu euh, yoonu ndox muy xur boo xam ne bii ndox dafay aw te mu am ay euh, kër yu fa nekk walla ay tool walla leneen ñu seet nan lañ ci mën a liggéeyee pour wàññi mbënn mi fii ci région de Dakar région de Dakar lañ ko tàmbalee waaye dañ ko bëgg a def ci région Sénégal yépp li tax Dakar mu gën a tar parce que fii la tabax yi gën a bari te tabax yi dafay tax ndox mi du mën a Euh, dugg ci suuf si bu baax a baax du du du mën a infiltré wu muy liggéey bu am solo boo xam ne bi ñu fi teew ñëpp ñëpp rafetlu nañ ko service yi ci waroon a ànd yëpp ànd ci muy service urbanisme muy service su domaine muy service su cadastre muy maire yi muy préfet yi sous préfet yi ñëpp ànd ci liggéey ko ñu gis ne am na effectivement ay ay ay ay kër walla ay lotissement wala ay projet de construction yoo xam ne yi ñi ngi nekk ci palaasu ndox wala ñi ngi nekk ci yoonu ndox te loolu dafay e, tax e, pour e, nga xeex mbënn mi dana jafeñ torop ci ci Dakar liggéey boobu nag danañ ko gën a saytu def ci benn euh, rapport de synthèse yóbbu ko ci gouvernement bi ñu waxtaan ci seet euh, ban saafara lañ ciy am saafara bi mën naa nekk comme niñ ko defee daaw fële ci lagu mbëbës président jëloon na benn décret benn baay bu ñu fa joxe woon mu annulé ko parce que bail bi dafa jege ñoon lag bi dafa nekkoon ci biir lag bi solution bi aussi mën na nekk ay investissement yoo xam ni danañ ko def pour que quartier yooyu ak zone yooyu euh, euh, ñu def fa assainissement bi war ba nga xam ne mbënd du fa am euh, loolu moom moo doon solo daje bi tey jii mu doon daje bu bu am solo boo xam ne bii ñu fi nekk ñëpp rafetlu nañ ko rafetlu nañ tamit liggéey bi nga xam ne commission régionale boobu gouverneur jiite woon ko def na ko fii ci ci région de de Dakar. ñu wax rek ne at yi di ñëw xëj na liy yombal mbir mi mooy am na liggéey boo xam ne bii guléet suñu réew doon ko def mooy li ñuy wax euh, benn modèle numérique de terrain maanaam dafa am liggéey boo xam ne bii ak ay avion lañ ko defee ak yépp day wan yoonu xur yi yoonu ndox yi ak euh, bépp point bu nekk ci Sénégal ban hauteur la am su fa ndox wàccee nan lay wàccee pour dem ci lakk walla dara loolu nag euh, wax nañu aussi service yi ko yore pour euh, ñu euh, mu nekk mu bañ a nekk rek liggéey boo xam ne bii service technique ñoo ko yore waaye danañ ko mën a def ak xarale yu bees yi ci askan wi képp koo xam ne kii bëgg nga am terrain wala lotissement wala autorité administrative wala maire nga dem interroger ko seet fi nga nar a def lotissement wala nar faa dëkk ndax yoonu xur la Euh, ndax yoonu ndox la walla déet donc euh, loolu aussi bokk na ci li nga xam ne jël nañ ko comme conclusion ñu gis ne euh, bërëb yu njëkk yi nga xam ne ndox amoon na fa ba ñu libere ko ñu ngi gis nit ñi ñu ngi fay dem di essayer dëkkaat maanaam fële ci géejaway xam ngeen ne bi ñu defee plan jaxaay ak yooyu yëpp génne woon nañ fa ay nit mais ñi ngi seet ne ñi ngi koy essayer dëkkaat te loolu danañ ci jël ay matuwaay pour ñoo ñu fay bëgg a dëkkaat ñu ñu jëlee leen fa loolu daal moom moo doon solo daje bi nga xam ne def nañ ko tey jii euh, gouverneur présenté rapport bi ma jiite daje bi ànd ak sama naataango ministre Isaaxa Diop mi nga xam ne moom la ñu dénk mbirum prévention ak gestion d'inondation xëy na dana am lum ci yokk ndaxte moom euh, ay bés bu ñot mi ngi ci terrain bi te te liggéeyam bi mu ciy def euh, feeñ na ci rapport bi nga xam ne moom la wane tey jii baax na jërëjëf.